Euh, mbokku téléspectateurs yi mbokku Kabir TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen jox seen wàccuwaay euh, di am mbégte bu baax a baax a baax Kabir TV ñëw teew fii nga xamante ne mooy campement Ngexo ñëw nemmeeku sunu mbokku daara sunu mbokku pas-pas mbokku diine macha allah ci benn internat internat bi euh, sëñ bi maa ngi lay nuyu bu baax di la ziara mu bëggoon rek nga baaxee ñëw turu internat bi ak tamit jotaay yi nga xamante ne tey teew ba ñu ñu jóge ba dakaar ñëw fii fekk si leen euh, gannaaw bu ñu nuyoo mbokku internet yi mbokku Kabir TV bi euh, ñu ngi lay nuyu bu baax baax dala la ziar. ñu lay fay bu baax a baax fay sa la dalal itam ci rafetlu jotaay bi nga xamante ne moom lañu amal fii muy Kabir TV di am mbégte ak kontaante ci teewaay bii nii euh, waaw nag daara ji ñu ngi koy wax ansaaru diin. Ansaarul Diin macha allah. nekk fii ci campement Ngeko waaw waaw gannaaw bu ñu nuyooyee téléspectateurs yi mbokku Kabir TV mbokku internet yi tey ñu am euh, mbégte bu baax a baax gannaaw bu ñu toogee nuyu mbokku téléspectateurs yi ndax gis nañu sànq xale yi nuñ doon euh, yi macha allah euh, kaddu di sàbbal li nga xamante ne mooy sunu borom ñu buggoon rek nga wax ñu programme bi nan lañ koy waajalee ci waa conférence bi nga xamante ne moom ngeen di waajal. waaw xanaa kay di gën a santaat yàlla rek. di wax ne xale yi ñoom moom euh, loolu mooy suñu bëgg-bëgg si si ñoom ba nga xamante ne ëllëg fu ñu taxaw wala fépp fu ñu dem ñu mën a ràññee si ñoom euh, li nga xamante ne moom la way jur di soxla ci doom euh, yàlla def nag ñuy amal suñu bés bi di ko tàmbale la fas yéene ko amal la douze juin bii di ñëw incha allahu rabbi di ci waajal tamit mbir yu ama am solo yi nga xamante ne Euh, dinañ si ànd ak euh, xale yi si la nga xamante ne moom lañ leen jàngal ci lu mel ni alxuraan bi nga xamante ne moom la ñuy xëyee chaque jour di ci gont waaye tamit euh, am la nga xamante ne itam manta ñàkk ndax mën naa ne bokk na si li nga xamante ne dina yee nit ñi ci jëtaay bi bu boobaa xale yi nag war ko amal di sàkku tamit ñëpp daal di ci teew daal wax dëgg yàlla waaw. ñu bëggoon a xam rek euh, oustaz euh, daanaka daara gi kañ la tàmbalee kañ ngeen tàmbalee li nga xamante ne mooy internat bi ak tamit programme yi nga xamante ne xale yi nan la ñuy jàngee ak seen waajur tamit ba xam ndax dañuy fay wala da ngeen ubbi internat pour mën a jàppale tout tànk yi. waaw daara ji moom mu ngi tëji mois de août mois de aout deux mille vingt deux mille deux mille vingt la tijji kon donc ànd daanaka amagul at waaw euh, xale yi nag méthode bi nga xamante ne moom la ñuy jàngee euh, mooy comme daara internat yu bari méthode bi nga xamante ne moom la ñuy jànge euh, ñu tëral ci tamit maanaam doxalin bi nga xamante ne dana tax xale bi lépp la nga xamante ne mu ngi koy jàng mu mën ko ràññee waaye tamit mën ko mokkal Euh, am ci heure yi nga xamante ne pour tari dars la am ci heure yi nga xamante ne tari muraaja la mooy révision li nga xamante ne moom la ñu weesu am ci heure yi nga xamante ne tamit euh, dars yi nga xamante ne maanaam xaw na des si ñoom dañ ciy jaaraat defaral leen ko ngir mu mën a dellusiwaat ndax jàng moom programme la rek nooy nooy gën a dem xale bi lu muy gën a dem di gën a sori yow maanaam programme bi nga koy tegal tamit toujours danga ko war di saytu ndax boo ko saytuwul mën na permettre tey jii nii yenn leçon yi nga xamante ne yenn saar yi nga xamante ne jàng na ko mën na ko fàtte loolu moo waral tey jii bu ñu jàngee yenn heures yi leçon ba ñu tari euh, yeneen heures dañ koy daal di def muraaja waaw bu ko defee da ngay mën a boole ñaar yëpp ba nga xamante ne xale bi bu wàccee wala bu xaajale pour mu toppaat mu mën a mokkal day yomb daal. Uh-huh. ñu bëggoon rek uh, xam uh, ndax uh, xale yi ñaata at ba at la ñuy ñëw fii nga xamante ne wala quatre ans la wala deux ans la wala trois ans ba dix ans yooyu ndax dañ fi gis nañ fi ay ñu xamante ne ay tout tànk lañu ñu bëggoon rek nga baaxee ñu. waaw xale yi de daanaka seen âge moom fii ñi nga xamante ne ñoom lañ fi jot a dencagum bu bëree ba bëri cinq ans lay démarrer jëm jëm kaw. bu ko nga xamante ne euh, bu yenn âge bu suufee yenn âge yi mën na la indil yenn gàllankoor yi waaye daa xam naa ne cinq ans jëm kaw dina doon la nga xamante ne lu ñuy mën a jël la daal waaw ndax dina fekk xale bi dëgër te ni nga bëgg tamit pour orienter ko si tamit bu boobaa dina gën a yomb ci yow daal. bëggoon a xam rek oustaz ndax dañu gis ne jamono neexul ndax euh, yor internat yor ay tout tànk ba xam ndax état gi tamit ñu ngi leen di jàppale wala tamit seen propre moyen la euh, ñu bëggoon rek nga wax ñu ci tuuti rek. waaw côté googu moom bu fekkee ne wàllum état moom dugalagu ci loxoom euh, daanaka lu ñu sos la li nga xamante ni ñun ñooy dem ak suñu doole euh, ak ndimbalu yàlla suñu borom ndax daara moom ñëpp xam nañ ci Sénégal yor ko dafa metti kon donc yow yaay démarré rek ba baa yàlla suñu borom di ñëw euh, am ñi nga xamante ni dinañ la si fekk si man la si jàppale te comme lu ñuy wax suñu njëlbeen wax rek boo xoolee ba mu commencé euh, yàggul ba mu tijjee yàggul waaye nag alhamdulilah euh, sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax mënoon na gën a metti comme comme nii mais yàlla suñu borom moom mu ngi ciy def sutura daal waaw. ñu bëggoon rek daanaka bu fekkente ne am na kenn ku war a tari ba tey rek. mu ñëw tari ñu continuer li nga xamante ne mooy waxtaan gi euh, macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والله غفور رحيم قد غاد الله لكم تئلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلم عليه عرض بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ صداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا تجزون ما كنتم waaw oustaz ñu gis ni Mohamed Koulibaly mii nga xamante ne muy alquranul karim bi mu yëkkati fii nii ñu bëggoon rek xam ne ndax ba ma ñëwee ba léegi maa ngi xool gis naa ni euh, ay bëriwuñu fii ay jigéen euh, te gis nañ ni ñu si bari ak tamit li ñuy wax ci internat yi ndax yar bi ñuy euh, euh, séntu ci euh, ndongo yi mu ngi ci ñoom lan moo tax yéen boolewu leen góor ak jigéen ñu bëggoon rek nga wax ma ko ndax ñu si bari tey jamono ñi suñu mbokk jigéen ñi dañuy faral di ragal yóbbu seeni doom yu jigéen ci ci ci daara yi. waaw loolu de dinaa ci sawar tontu lool mooy que ni xam nga la nga la nga xamante ni da nga ko sos te eh, daanaka. yàggagut boo wax naa la ko daara ji ba mu jógeek léegi at sax matagu ko loolu nag bokk na si suñu programme mooy ñu am internat yi nga xamante ne ay jigéen la ñuy doon waaye jamono dafa toll fi nga xamante ne ni nga mënee yor ab waxambaane bu góor euh, bokkul ak ni nga yoree waxambaane bu jigéen kon kooku tamit am na yeneen condition yi nga xamante ne euh, moom lay laaj waaw ndax des fois nga euh, dégg si daara internat yu bari lu ñu leen di jamee si côté yooyu moo tax bokk na si suñu programme waaye saay bu ñu amee condition yi nga xamante ne moom lay laaj pour ñu teg ko rek danañ ko teg mais actuellement moom saa yi ñu ngi ci internat yu góor ñi ñi nga xamante ne ñoom nga fi gis ñu nekk quelques jigéen euh, doomu kilifa gi nga xamante ne moom laa fi nekkal moom mi nga xamante ne gannaaw yàlla lii yëpp moom la waaw. <laughs> ñu bëggoon rek xam naa ni moom it du ñàkk dinañ ko jël ndax gis nañ. Euh, yaakaar naa ne ku jaarul euh, fa nga xamante ne ci euh, jur doom yu ci bëri doo ko mën a supporter ci ay doomu jàmbur yoo xamante ne dangaa toog rek ñu fekk si la ñu bëggoon rek xam tamit ndax bu école tëjee dañuy faral di gis ni yenn internat yi dañuy may xale yi dem nemmeeku ji li nga xamante ne seeni waajur. waaw ñoom dinañ am moment yi nga xamante ne dinañ dem nemmeeku seeni waajur comme suñu programme bi ñuy waajal. bu yàlla defee ba ñu def conférence ba mu jàll ci jàmm dañuy bàyyi xale yi ñu daal di dem dallu ji ba seen heure fête bi jeex ñu doog a dellusiwaat. ay ñaata weer. waaw mën na doon un mois wala un mois ak dix jours ndax internat moom ay feetam bu baree ba bari si lay yem comme ñoom at bi yëpp dañuy toog nekk ak yow te ñun ñëpp xam nañ ci nekk ak famille euh, nu mu mel waaye bàyyi boobu tamit ñu leen di bàyyi nekkul ne dañu leen a bàyyi rek ndax dañu ñoo sonal. déedéet maanaam xale boo ko yoree di ko jàngal maanaam dina am période yi nga xamante ne day soxla boppam mooy nga bàyyi ko mu dellu ci ay famem xelam mën a siwaat saa bu ñëwee rek yow di nga mën a amaat yeneen méthodes yi nga xamante ne boo koy def rek du sonn waaw maanaam ñun loolu lañ si namm pour ñu bàyyi leen ñu dem noppalu ko ji dallu waaye tam même bàyyi boobu ñu leen di bàyyi am na programme bu ñu leen tegal boo xam ne dana tax ñoom li ñuy jàng duñ ko mën a fàtte ba baa ñuy dellusiwaat incha allah. ñu bëggoon rek nga wax ñu ca euh, bés ba jouru conférence bi ndax ñoom ñëpp ay euh, daanaka tari ba xam rek. waaw loolu mooy suñu bëgg-bëgg. waaw loolu la ñu bëgg maanaam xale yëpp ñu ñu tari parce que ne woon dañuy programme ñii tari ñii ñu bàyyi waaye bu boobaa tamit amaana mën na bañ a neex ñëpp parce que loolu mbiru àdduna la. damay faral di gis eh, ci daanaka daara yi nga xamante ne xale yi ñii dañuy tari ñii duñu tari mais am na ñoo xamante ne du neex seeni waajur. waaw loolu nag lañ siy bañ moo tax ñu bëgg programme xale yëpp ñu daal di tari euh, programme bi di commencé 10 heures jëm côté 5 heures am nañu yaakaar ni incha allahu rabbi niñ ko bëggee pour xale yëpp tari dina demee noonu pour ñëpp mën see gis seen bopp daal. incha allah tey jii lan ngay wax waa Kabir TV yi nga xamante ni ñëw fekk si leen fii nga xamante ni mooy campement Ngexo fekk la fii si daara ji. waaw Kabir TV moom euh, dañ koy ñaanal rek yàlla suñu borom gën a dooleel seen liggéey yokk niveau bi bu baax a baax a baax yàlla barkeel seen bi euh, yóbbu ko fu kawe kawe kawe kawe. ndaxte lii nga xamante ne moom la def ñun amuñu fayam wax dëgg yàlla doon na lu rëy si ñun tamit la nga xamante ne sedd na suñu xol lool lool lool. dañuy faral di gis ne fii daara ji nekk nii internat bi xaw nañu laaxu tuuti ndax yaakaar nañu lu mel ni rek moo mën a fësal li nga xamante ne moom ngeen di def. wallaahi loolu moo tax ñu kontaan sax parce que fi mu nekk nii comme ni nga ko waxee fu mu nekk làqu na daanaka booy ñëw euh, buñ la tegtalul doo xam wala boo dëkku si dëkk bi doo xam mais li nga xamante ne moom la Kavir TV def euh, ñëw nekk ak ñun ànd ak ñun. Euh, di waxtaan ak ñun ngir yaatalal ñu li nga xamante ne si lañ nekk loolu sant yàlla la di ko di ko ñaanal waaye tamit di ñaanal kilifa gi nga xamante ne moom moo sabab lu lii parce que yoon la itam ndaxte doomam mu ngi ci biir daara ji mënoon nañu jox doomam rek euh, dégager ay responsabilités mais wax dëgg yàlla mu ngi ci ànd ak ñun si lu li nit ñi yëg ak li nit ñi yëgul. Euh, bu ko defee tamit xanaa di wax ne comme moom ni mu ko defee way jur yëpp bu ñu defee noonu bu ko defee ñun dundin bi fii duñ ci am jafe-jafe te lu ñu bëgg dana sotti incha allah. jërëjëf Modou xam naa ni dañuy laaj euh, soxna si moom itamit mu sànni ci ay kàddu. waaw gannaaw bu ñu nuyoo euh, ñi nga xamante ne ñooy téléspectateurs yi euh, Kabir TV soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la laaj sa tur ak sa sant ñu bëggoon rek tamit nga baaxee ñu comme yow yaay yaayu daara ji nga wax ñu sa nekkin fii ci euh, daara ji ak xale yi ndax gis nañu yor doom rawatina ay junni junni doom. nga wër leen tamit nekk loo xamante kenn ku ci nekk day àndaale la nga xamante ne moom lañ ko yaree ñu bëggoon rek nga baaxee. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen waa chaîne bi Kabir TV di leen sant di leen gërëm ndax li ngeen def nii bu rafet la macha allah amuñu seen fay parce que léegi ku ne ñu bari bëgg nañ ko te eh, amuñu ko parce que moyens yi moo leen ko dul may xaj na ah ñu kontaan lool ci seen ñëw bi nag di leen sant bu baax di leen gërëm. di sant seen kilifa di ko ñaanal yàlla fa mu jëm moo ko xam yal na fa yegg ci barke yonant bi waaw man mag maa yaay daara ji Seyna bu laa tudd sant Guèye waaw Seyna bu laa tudd waaw Seyna bu Guèye laa tudd doom yi nag macha allah yëpp samay doom lañ jaboot naa ba pare moom macha allah xale yi naqari wu ñu yor ndax oustaz yar na leen dëgg na kenn ku ci nekk bi ngay ñëw indi nga sa jikko waaye daanaka léegi jikko yi benn la ndax oustaz mi leen yor ah, dafa am ay qualité yu ne ci moom qualité bu bu ne ci nit nag moom rek lay def ci ki mu yar waaw sëñ Tuubaa dani woon waxuma ki jur ki yar laa wax waaw waaw sëñ Tuubaa loolu la wax dani moom waxul ki yar jur ki yar rek la wax ndax yar moo am solo ki la yar qualité bi ne ci yow yëpp moo ko ciy def te oustaz Mouhamed Faye macha allah am na yar am na teggin am na diine am na sutura am na ngor loolu lañu wan bi ñu nekkee moom ak léegi ci at lay tool waaye macha allah gisuñu ci moom benn benn benn défaut buñ ko mën a jamee waaw waaw benn défaut buñ ko mën a jamee gisuñu ko lu dul yar ak i teggin fu ñu toog wet dañ koy waxtaane ni ak ah, oustaz nit ku am yar la ku joxe cër la ku am dal macha allah ñu kontaan ci moom lool. amaam dar amaam dar ila sama dar ila sama dar ila sama صريح صدراء تكبير تحليل لا إله إلا الله تحليل لا إله إلا الله yéenay ñaan yéenay ñaan lan moo leen ñor lan moo leen ñor i'tidal أولا أيوة حنان jullit di Sénégal dañoo far batte tey sunu gaal ñoo joowa kay àndandoo te joow gaal mu laaj yëgandoo dañoo far patte tey suñu gaal ñoo ku jàngal bay yar dunu gan ku boole jàng ak yar gan te soo jàngee te yow woo li ngay am rot ci yaru jariñoo dañoo far fàtte tey sunu gaal ba teñoo jow wa kay andandoo te jow gaal faw a dina joxe lépp lu ma am dina def lépp lu ma man ngir dimbali dëgg ansaru diin te wax man ko jële sama xol ana fàtte tey suñu gaal ba te ñoo jowa kay sëriñ Tuuba bindoon na ci yaru ci tereem be mu def ci yaru lu way mën a ut ci lu dul yaru ñu xañ ko ko faw te du ko jariñoo xanaa ñun Sénégal far fàtte suñu gaal ba teñoo te tànnal bay ju baax aji yar mu jukk ni yar jafe na ku xam li jàll li xumb yaa ngay muñ bay yow ak ku muñ muñ bay yow ak sama muñ bay yow ak ku muñ muñ bay yow ak sama yaay xanaa eh. faar fàtte tey suñu gaal ba te ñoo ah te jowgal faw mu laaj yëgandoo. te jowgal faw mu laaj yëgandoo. ah te jowgal faw mu laaj yëgandoo. te jowgal faw mu laaj yëgandoo. iratidal awwalan